want. Yene Sen Sen, Rumi Venkat TV. jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di Rewmi 24 TV li gën a fas ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek doyen des juges bu d'instruction bu tribunal bu Ndakaaru nag daal dinay place rek mandat de dépôt kii di Jérôme Bandiaky mi nga xamante ne rek la ñu koy toppee mooy njuuj njaaca ak yore arme boo xamante ne rek arme à feu la te amul ci benn autorisation ginnaaw nag magistrat yi nga xamante ne rek dañoo daal di topp réquisitoire bu procureur de la République jamono ju ñuy wax nag daal dinañu koy placé sous mandat de dépôt ba tey ci wàllum xibaar bu ñu ko foofu dañuy àddu rek wax ci monsieur Amadou Tidiane Wane mi nga xamante rek daal dinañu koy tabb ministre conseiller à la présidence de la république xibaar bu nu mel nag ko daal di fësal rek nekk tey jëlee ci wàllum xibaar kii di Amadou Ba nag daal dina yëkkati kàddoom ne ne nag ni ki démb ci talaata ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ci atum 2024 jot na ab délégation boo xamante ne rek ay anciens cheminots lañ maanaam daal ay nit yu yoo xamante ne daal dinañu koy gis ñu ànd bii di Amadou baax ñoom ñooñu nag nekk ay nit yoo xamante ne rek ñu nga jóge ko foofu ca diwaan bu Thiès daal nañu wax nag seen naqar bi nga xamante ne daal dinañu koy am ginnaaw nag buñ ko sargalee ba noppi daal di koy jaajëfal ci rencontre bi nga xamante ne rek amoon nañ ko ñoom ñooñu nag daad nañu waxtaan ak ñoom seen njàqare que ne lii di seen passion depuis ba ñu retraité ba léegi boobaak léegi def na ñaari décennie kenn joxul leen ko ñu gis ci ñoom nag directeur général bu société nationale des chemins de fer du Sénégal ak di monsieur Ibrahima baax ak directeur général bu société exploitation des trains Express Regional, SNT, SA, die, ach, die Tsjechen Ibrahima Ndiaye ñoom ñooñu ñëpp nag daal dina leen dalal ci situation bu métti bi nga xamante ne rek jamono ji ña ngi koy dund ne na nag moom ci jëmi boppam rek daal dina leen assuré dina engagé wu rek ci question yi nga xamante ne rek daal dinañ ko fay yëkkati dina ko jagleel rek ñii di autorité yi dinañ leen koy yeggee waaye nag daal dinay wax ne rek dina ci waxtaan ak ministre des finances de l'agence judiciaire de l'état ngir nag mu daal di ci xool rek naka lay def ba daal di saafara seen i jafe moom ci jëmi boppam rek daal dinay wax njëriñ bi nga xamante ne rek ñu garantir nag seeni condition de vie ñoom ñi nga xamante ne rek nekkoon nañ ay anciens travailleurs maanaam nekkoon ay liggéeykat daal di bokk rek ci du développé nag réew mi rawatina nag ci secteur ferroviaire bi bu réew mi ci moom ci jëmmi boppam rek nee na engagement bi nga xamante ne daal dina koy am nag ngir defaraat chemin de fer moom moo nekk rek mbir mu ko ñor du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir mun a am yeneen xibaar